asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alxaaji mbégi jëpp ak Mame Ndokh bi mbokki jullit yi tey nag li ñu tax a jóg mooy Abdoulaye Ndiaye Ngalgou taalibe sëriñ Abdoul Aziz Al Amine boobu euh, mbaax gi mu def ci biir koor gi bëggul kenn ku ko filmer waaye nag ñi mu defal teranga ci biir kër yi néew di doole yi ñoo ma woo téléphone wax ma ne naa leen santal Abdoulaye Ndiaye Ngalgou loolu nag rôle communicateur traditionnel la bu may def kenn santuma ko maa ko defal sama bopp ñi nga dimbali wax ni naa leen wax ni nan la wax jërëjëf ndax cent tonnes ceeb ku ko jënd séddale ko néew di doole yi war nañ laa wax jërëjëf cinq cent carton tàndarma war nañ laa wax jërëjëf bu la neexoon mën na la cee bañ a fekk ndax tabarakallahu lu téeméeri nit war a bokk ba ko sunu borom dajale jox ko kenn nit tegtal la ci sunu borom daf ni la séddaleel li nga am njaay yaa ngi koy bokk ak jaami yàlla yi bëggoo ko ko filmer bëggoo ko ko wax waaye ñun nag dañuy gëstu lu ñu xam lu baax dinañ ko wax ndax Tiwaawan lañ dëkk tay ay communicateur traditionnel lu baax lu ñu gis dinañ ko wax ñu ngi lay ñaanal loo mën ren bu déwénee yàlla nga mën lu ko ëmb ci barke Seydil Hadji Malick Sy